intérêt de l'Afrique parce que mënuma gis na yow da ngay dugal sa euh, marchandise ñu lay nu mu tërati dédouané de de nu mu tërati douane alors que ñun bu ñuy dem foofu dañuy fay suñuy douane nga am seen i ñu am seen i entreprise yoo xam ne ñu ngi ko implanté fii ci Afrique de l'Ouest et que derrière ñoom du ñu fay fisc bu koy fay dañ koy fay ci seen dëkk yi nga xam ne ñoo fa nekk ça ne profite pas à euh, aujourd'hui aux Africains aujourd'hui ces contrats yi nga xam ne signé nañ ko nga xam ne ñoom dañuy am 82 pour cent ñun ñu am 18 pour cent ça ne profite pas aujourd'hui Bassirou Diomaye Diakhar Faye a osé aujourd'hui devant nu mu tërati euh, autorité yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon di nga gis seen biir ñuy waxante ko waxante parce que il a osé le dire mm-hmm. fat gis nga nag lii discours bi mm-hmm. publicité rek la nga xam nga lan moo ci des développement bee ci des te développement bi il faut que Sénégal jàppale ko gis nga Bassirou Diomaye Diakhar Faye discours bi mu tenir bu nekkee ne loolu la nar a man dama war a wax ne Sénégal nga nekk opposant nga nekk société civile nga nekk activiste nga yor ONG wala ngay liggéey feneen ak feneen pour man dañoo jëkkati war a yëkkati seen loxo jox ki nga xamante ne mooy Bassirou euh, jox ko bénéfice du doute ànd ak moom ci liggéey li nga xamante moom mooy taxawal un Sénégal meilleur un Afrique de l'Ouest meilleur pour aujourd'hui mun a tendre en Afrique boo xamante ne dinañu mën a yóbbu fu sore sore sore sore sore ndax président bu fi toog rek Fatima euh, euh, Penda danga fi man <laughs> dama ko miin ndax moom laay defal émission danga président qui a tenu un discours boo xamante ne c'est pour l'intérêt de l'Afrique vivement que ces mots aujourd'hui mm. accompagnent ces ces actes aujourd'hui mm. accompagnent ces mots-là mm. pour qu'on puisse tendre à un développement durable mm-hmm. alors le président Bassirou Diomaye Faye selon vous a-t-il tenu vraiment un discours fort euh, keroog devant les 500 participants euh, Oulay mm-hmm. euh, ce président li mu wax nii suñu la mu naqari la mooy sa président li mu wax la mu naqari la li mu wax nii tenir parole parce mm. qu'ils ont jamais tenu leur parole quand même parce que si on voit Bassirou Diomaye Faye en France aujourd'hui il a osé là moi je me pose des questions quand même mm, la France boo xam ne euh, daf Euh, heure bi je pense que bu ñu yéegoon heure bi dafa woon fekk ñun ñu débarrassé wu ci France. non c'est pas pour euh, l'intérêt du Sénégal. na non mais bourse financière. non c'est pas l'intérêt de la France. d'accord waaw mais mekk ah, mu après man man man loolu lañ ma jaayoon jaay ko Sénégalais yu bëree bëri. ne leen et ñun on savait que c'était pas possible moi je savais que c'était pas possible mais dañ ne woon bu ñu ñëwee dañuy débarrassé wu de la France parce que la France vraiment c'est c'est catastrophique suñu diggante ak waa France ils voulaient même pas voir Macron kon lii mu wax ni tey ci digg français yi populisme encore une fois comme ni nga ko waxee euh, panafricain les panafricains de gauche leur façon de faire leur leur façon leur façon de faire. je mm. pense que loolu la li mu wax du ko mën a respecter dégluwuma ko nag parce que euh, deux fois de suite maa ngi koy déglu et on est devenu on était devenu la risée du Sénégal du monde parce que de un par rapport à son langage par rapport à sa tenue par rapport ak ni muy waxee. Mm. français de de président bu déggul français c'est bien vrai ñu ne euh, man li ma naqari par exemple du parce que du le fait que dégguma français wala dégguma kii man li ma naqari mooy li ma déggul tukkuleer bi ma doon. man loolu moom daf maa naqari ba ci kanamu yàlla bien vrai nit ñi dañuy wax mais nag avec lui euh, day am exception parce que c'est le président du Sénégal c'est un président kon am na tenue boo xam ne daf ko war a am. kon li muy wax nii dafa war a am euh, bon li ma jot a dégg peut-être tey dama ko dégluwul peut-être tey dama ko dégluwul xëy na jàngal nañ ko ba mu xaw a kii mais on l'a vu. Guinée Guinée Bissau wala xawma gis nañ ko fa gis nañ ko pen <laughs> yaa gën a xam li ma lay wax yow tamit mais li mu wax nii moom franchement <laughs> li nga li li li eh, wax ne moom la wax ne na ko mu ngi koy ñaan yàlla mu respecté ko du ko mës a respecté parce que bi ñu ur réew mi ba ñu ko jëlee ils ont rien respecté la CEDEAO c'était le monstre et maintenant la CEDEAO il travaille pour la CEDEAO il travaille pour la frique la ñu waxante woon seen mbokk panafricain de gauche yi gis nañ ko tey ba gis nañ li mu jur ci sous région bi sous région bi nga doon nuyu léegi loolu la ñu ngi ko yàq président bi ak. gouvernement am di leen xas di leen saaga di ko ko yàq di ko yàq premier ministre kon <laughs> li ñu waxante woon yëpp euh, maanaam daal bi ñu fi yéegee ba tey seen kàddu dara respecté wuñ ko ci et je pense que li mu waxante tubaab bi encore une fois c'est leur façon de faire c'est du populisme pour euh, li ñu waxante woon sénégalais ak respecté wuñ ko ñu indi ko mais mais même ah, ah, ma ñu ulee boo ma ko mayee très très rapidement rek gis nga Ndeye Ndeye Babel je t'adore réel. il faut pas dans la vie gis nga euh, dans la vie on doit pas être complexé. Mm-hmm. ñun dañoo war a gëm ñun lu ñu doon. Mm-hmm. Bassirou Diomaye jaxaar fay pour man bu ma koy jugé du ma ko jugé ci accent parce que séeréer la. non pas accent déggul ñu wax. boo déggul français dégg français. pas accent kenn déjà. pas accent waaw waaw ci français. ci français. yow boo nee Bassirou Diomaye Diakhar déggul français xaw ma kan kan moo dégg français mais ak même bu nekkutoon déggul euh, déggul français. parce que loolu gis nga moom lay moom laa lay waxee complexité bi nga xamante ne ñun am nañ ko vis-à-vis des Français gis nga man Penda le ak laa fu ma neex laa koy teg sama yoon nekku si xam nga lan moom ma ñor li may communiquer ak sama askan ñu xam ko ñun suñu suñu langue xam nga la teel wolof xam nga lu tax ma bëgg ulay may ma rek ma ñëw may ma ma ñëw may ma ñëw français nulaar la déglu ma déglu ma rek ma ñëw du man maa ko traité de nulaar man dama am sama idée keneen am ay idée seen idée la ko traité mun naa ko jiñ soxal mun naa ko jiñ ñaan mun naa ko traité Ousmane Sonko ko traité de nulaar bu déggul waaw may ma rek ma daaneel gis nga il faut pas être complexé dans la vie non on n'est pas complexe aujourd'hui Babel lu dul toog ne Bassirou Diomaye wax na li mais xam naa ne du ko def Ndeye Sow mënul toog ne Bassirou Diomaye Diomaye wax na lii mais xam naa ne du ko def yow doo doo doo doo doo doo divan doo sëriñ doo kon xam nga ñun lan lañ mën a. mais daf ma woon daf ma woon ma gis. amul pend daf ma woon ma gis. ci 3 mois yu ko la ma ma day ut réew mi. déglu ma ma en 12 ans munoo leen. koo def réew mi dañ koo jox réew. en 12 mois en 12 ans réew mi munul dañ koo jox réew. bu réew da ngeen koo leb en 3 mois. Ndey Babel bu réew. bu tur réew mi dañ koo jox <laughs> ay waay débat koo xamul nu mu tudd métti na. mais dama bëgg nga xam ne. Ndeye Sow euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. ku tudd réew mi dañ mi et a été à euh, euh, nga xamante ne dénk nañ ko man nag bu na ko ak suñu journaliste yu talentueux yooyu su nekkee ne ci koo xamante ne aujourd'hui il a les têtes dans les épaules c'est personne boo xamante ne tête vide la parce que non seulement il n'était pas préparé à être président et aujourd'hui on président boo xam ne il apprend très vite. et c'est un président très intelligent. et c'est un président très courageux. léegi xamal la boo toogee nga ne dañoo war a. couper mais aujourd'hui quand on parle de développement à 100% avec ñi nga xamante ne ñoom mooy l'étranger. penda déglul ma wax la. gis nga bi nga xamante ne mu ngi am Mali. déglu ma danga may may ma daaneel ba pare may ma ma daaneel may ma ma daaneel coupure bi nga xamante moom moo nekk Mali nga xam ne dañuy toog ay 3 jours 4 jours duñu duñu am courant li nga xamante ne moom mooy ñàkk jaay réew mi renégocier waat ko ba delloo ko askan wi ba nga xamante ñun askan wi dinañ sentir suñu bopp ci li nga xam ne moom mooy suñuy matière première renégocier accord ba nga xam ne dina nekk nekk accord gagnant gagnant ñun ci buñ leen ëppalee wul parce que loolu lay xaar et c'est pas aussi avoir des contrats exclusifs avec la France ni avec euh, euh, nu les Américains ni avec la Suisse mais avoir des contrats avec tout le monde pour que ñoo mën a am gagnant gagnant léegi may naa la nga daaneel léegi xam la laa bëggaat suñuy wax du ma no du ma wax baagal xaral palaat moom day sow moom day sow nday sow moom day sow moom day sow lay laa buy wax waaw ma may ko mu wax nga déglu soo paree su mm-hmm. paree après mm-hmm. yow nga relance mm-hmm. lu dëgg su ko defee ñi a comprendre sa waay na ñëw for yëf yëf dire cest dire nday sow fan laa la bëggoon euh, fan laa la bëggoon fan ak yow sa biir wax da nga ne peut-être li nga xamante moom moo di discours am point yi nga xamante mais j'ai compris par rapport ak li nga euh, wax ak parce que li wax mooy ambition yi Sénégal Sénégal am ak ak la France. Euh, euh, d'accord euh, mun nga bañ a ànd ak moom peut-être ci yenn point yi mais am na benn point bi nga xamante ni tey jii les les opposants sax tey jii de ce dañ ci ànd ak président Diomaye parce que dafa nekk problème rawatina nekk problème bi nga xamante dafa fës lool ci li nga xamante moo di le milieu sportif muy li nga xamante moo ñeel wàllu racisme le président ci discours am mu déploré ko ba xénophobie yëpp ñu fexe éviter ko ci li nga xamante ni moom moo di ci monde sport mu nekk li nga xamante ni lu am solo la ñu bëri rafetlu ko. pas surtout pas surtout pas surtout parti boobu. pas surtout dans le milieu du sport euh, ku xam tubaab waxuma la France kese de ku xam tubaab xam ne dafay teg ay daan yu sévère ci képp kuy def yëfi racisme raciste am na wala amul. racisme bi mi ngi jógaat ci ci ci France ci diggante sénégalais yi ak nasaraan yi wala africains yi ak nasaraan yi bi ñoom bi ñu xewee ñoom commencé di wax ne France na dégagé di wane ne ñun bëggatuñu France di wane ne tubaab bi nañu so noppal di wanaa ne tubaab bi dañu teggi seen tànk bi ñu teg suñuy baat bi ñu déggee ñoom ñoom ñuy xas ñoom ñii ñuy xas ma la yow ñi fi nekk laa wax ñuy xas Macron di ko saaga di ko yekk xiteme ay ñoo xam ne ñu ne dañoo bëgg a yor réew mi ëllëg ci la racisme yi juddu bés boo demee YouTube na nga wala Google nga tapé euh, documentaire ci racisme bi ñu commencé waat les Africains son en de le subir nii nii nii waxee yow parce que nee nañ xanaa ku ne déglu nga Éric Zemmour segam yéen yéen ñu bañ asamaa ñun keroog ba ko Éric Zemmour waxee ñëpp dagg seen yàpp yaram waaye dañuy fàtte ne ñun ñun ñun ñun dañ ne France ñun nañu bàyyi bëggatuñ leen ñoom dañ ne wax loolu ñu ne France bëggatuñu daray France. man ba Bassirou Diomaye fay moom laa gis tey mu dem di négocier ne day waxtaan ak ñoom ne da leen ni yedd ne da leen ni ñaan da leen ni ñaax ñaanu leen da leen ni ñaax wax neex na de waaye jëf jafe na de ndax bañ leen xamee ba tey ci 15 ans ci ren ña ngay wax rek. mais ci kaw négociation yi tamit am na fu muy dul baaraam fu am solo. waaw mooy que ni léegi ci wàllu négociation boobu ci wàllu partenariat yëpp dinañ fexe bu mu nekk des partenariats gagnant gagnant. gagnant am il faut xam démb sa média judd bu yàgg yàgg ay at ñu nekk gagnant gagnant il faut qu'on arrête gagnant gagnant mënta am ci sénégalais ak tubaab ñoom dañoo rawee lu bëree bëri ay kilomètres kilomètres yu ñu mënta daw ñun di leen dab c'est dommage. dommage. ah mais mais c'est la réalité c'est la réalité maa ngi dégg ngay wax léegi di tëkkale Sénégal ak Mali pourtant ñoom dañoo nawloo Mali ñu nekk fi di ut réew mi di wane ne Mali ñu gën ñun te Mali da ngay toog 24 heures doo am courant te ñan ngi cee jëm nag courant bi par seconde lay coupé wax la minute par seconde lay coupé bi may ñëw léegi dawaa jugal junni crédit. junni connex junni eh, eh, courant dama ko maay man maay tey saa yu ma xëyee ñaari fan ñetti fan ma dugal junni pour xool xam nga lu ma am. semaine bay passé maa ngi doon am 34 kilowatt et quelque tey maa ngi am 30. ak tuuti loolu seen liggéey la yéen ko fi ba. bu ko fàtte maa ngi am 30 ak tuuti ñun biñ fii de ñun ñun ñun biñ fii dem dañoo dañoo wala la courant bi dañ koo bàyyi ci prix bu baax a baax a baax <laughs> ngeen wàññi ngeen wàññi courant bi <laughs> ngeen wàññi courant bi bu baax a baax garab yokk lépp yokk te mosoo leen koo wax sénégalais <laughs> entre parenthèse rek laay def foofu maa ngi jënd Doliprane barki démb 1250 Doliprane bi doon jar 1100 francs ñu wecc la ci ñaar dërëm muy 1090. kon daal réew mi dafa jomay. non romb na ko di dem dafa judd xoola joomaay dafa yow ñii nit ñu jigadee dafa ëpp dama ne la joomaay la mu wax France waxi mbele mbele coow la mun nañoo demagum fifty fifty ak France munul nekk loolu munul am barki dem dañ leen di jiiñ ñoom du ñu fay impôt seen ambassade bi toog weddi ko ba mu set taxaw ak Ousmane Sonko weddi ko mu set ne loolu amul dañuy fay impôt comme ñëpp. ñoom li leen naqari ci France naqari ñu ci ñun ñii ñun sénégal yi xam nga lan moo ñu naqari ñuy ubbi seeni société fii ci Sénégal di ubbi seeni euh, supermarché di jël suñu doom yi di leen embauché di leen fay prix yu bon yooyooy wax ji di fay suñu doom yi loo xam ne duñ ko fay Europe jël sa doom di ko fay weer bu dee 100 euro 100 euro bi nga xam ne bu dee France moom la koy fay. d'accord jël seen marchandise di yokk nu leen neexee nag bu tayee ñu yokk bu subaa ñu wàññi fan yi nit ñaa ngi bëgg a dee li ñu war a wax waxuñu ko. mais Ouleye je te rassure ton président li mu wax dara la ci du def. parce que munu ko. wax na ko encore une fois on a été encore une fois la risée du monde. parce que ñamu toogal xam ne mais pourquoi depuis depuis tout à l'heure yaa ngi naan Ouleye ton président. ma ne la. son c'est son président moi j'ai pas voté pour lui bien vrai que les ouais, sénégalais ont voté à 50 54 pour cent man perdre mais quand ma laal sénégalais la xam nga sénégalais nga xam nga xam nga man dañ ma jàngal ne ma boo voté lu nit que bëggoo ko du sa président man loolu lañ ma jàngal parce que dañoo wane ne carrément Macky Sall du seen président loolu lañ ma woon son excellence le président Macky Sall dañ ma wane du seen président moo tax man tamit ma gëm ne ñoom duñ sama président rawatina président boo xam ne pour man légalut légal na parce que dañ koo votel mais man xaw ma nan la doon ba nekk président ba nekk candidat il était en prison c'est une question que je pose boobu ba comment il a eu comment pu être président de la république euh, candidat comment il a pu être candidat soo bëggee tontu non attends j'arrive xaaral ma ñëw sama question c'est une question que c'est une question que je pose c'est une question que je pose boobu ba tey nit ñaa ma ciy reetaan. Mm. di ma récalé mais man j'ai le droit de dire que une personne qui est en prison ji moo def wala deful fan la jaar parce que booy signer en prison c'est avec sa baaraam tu écris une demande tu écris une lettre comment il a fait pour. Euh, prêter serment la ñuy wax waat pour euh, wax il a qu'une seule nationalité. ah yow yaa ngi remonté depuis li nga. fa man foofu laa nekk dama la les sénégalais ont voté pour cent virgule. pour Diomaye ils ont voulu et Dieu les a donnés ils ont demandé à Dieu Dieu jox leen mais man sama problème bi mooy comment il a fait en étant en prison pour être candidat c'est une question que je pose association de malfaiteurs saagakat yi ci euh, réseaux sociaux yi seen nawle yi ñoom seen naatango yi di ma ci saaga ci question bi may posé ma am ci droit war koo posé nag. d'accord léegi tegal foofu sa baaraam wala tontu la foofu rapidement moom nee na moom ba tey moom mu ngi. na. mais moo am j'ai le droit la question. nee na moom nu ba je suis attristée même pas pas pour cette question là parce que loolu ñàkk xam la te naa la xamal léegi ci kanam mais man li ma li ma attristé loo c'est aujourd'hui de penser que nous Africains nous Sénégalais aujourd'hui on n'a pas la possi possibilité tey àdduna di neex ba ñu ba ñu daw ba dab ñi nga xamante ne ñoom ñooy. mën na nekk mën na nekk loolu nga wax nga ne dañoo. loin mais nañ ko commencé ak ñoom segam ñoom ñi ngi segam ñoom ñi ngi ci ñi ngi ci daaneel eh, Penda segam ñoom ñi ngi ci changé contrat defaraat ay contrat yoo xam ne dañ ñëw